ñun lu bëri rek na saf loolu nag dafa war a daax moo tax am na ñoo xam ne xam nañ ne baaxul mooy chercheurs yi mooy nutritionnistes yi mooy médecins yi mais li ñu xam est-ce que askan wi xam na ko loolu moo tax ñu jagleel jotaay bu mel nii ndax ñu mun ci waxtaan suñ ci waxtaanee ñoom lu ñu jot a xam ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo amee liggéey boobu ñu mun ko tas ci biir.

dialogue avec le peuple waxtaan ak wax askan wi ngir fii 2035 sénégalais bu nekk mu xam li muy lekk lan la dañu de la fourche à la fourchette Madame. dañ koy top. depuis ci euh, fi ñu koy béyee ba fi koy lekkee mais léegi dañu bëgg inverser. inversé maanaam di nekk ci bool bi dañu bëgg a xam laata ñu koy lekk

Euh, chef de l'État gëwuma ko bi ma ñëwee wax lolu. faw ñu taxawal lo xamné ne na tax bi Sénégal dootuñu wax affaire insécurité alimentaire waaw plan de riposte bokoy def dafa wara nek lo xamné lu exceptionnel la bu amé choc manam tawul wala mu am inondation wala ben choc am nga manam solidarité solidarité nationale ñu mëna a ñu am ñu nekk mais dëkk mëno mëno mëno dëkk ci ci réew dëkk ci ay plan de riposte motax ñu euh, puisque am nañu nous am nañu ndox Sénégal dëkk am dëkk yo xamanteni nous ëpp ëpp ndox ak may investir dans le monde rural ndax nit ñi mëna lolu mun nek nekk ndox mi parce que bari nañu ndox ndox souf ak ndox kaw suñ ko defee eh, ay way way dinañ am luñu lek lekk. ji fi ci Sénégal mën nañu maanaam euh, séenu si deux mille ñu am autosuffisance maanaam du ñu jëggaane fële la. waaw ñu mën a suñu lek bopp di consommer. dëgg waaw lolu lolu lu mëna nek ah waaw lolu lu mëna nek la gis ngeen chiffres lu mëna nek la président gëm nako euh ñu bari gëm nañ ko man mi gëm nako motax man tax leen ay plan de riposte yu ay xam nga man defe naa ne état ci boppam moo war a euh, régler question yooyu partenaires yi li ñu fi nekk mooy jàppale ñu mënuñu compter ci partenaires yi rek partenaire li mu fi nekk mooy état moo koy wax defal nii jaaral nii mais yow su fekkente ne yow ki lay jox loolu wax lan la wax ku la abal bëtam voilà moo moo lay wax fi ngay xool kon loolu dafa war a dàq